yàlla def na nag ren euh, niñ ko xamee tàmbali nañu waaye yàlla def mu am tuuti tardement ba mel na ne li bi waxtu bi ñu programmé woon ngir tàmbali ko euh, am na lu mat juróomi fan wala juróom-benni fan yoo xam ne jot na cee jàll. am na oto yu jot a ñëw lu toll ci bis bu njëkk bi tàmbalee ñi ngi tàmbalee woon ci lu toll ci ñaar ak ñeent te ëllëg sa ñu am ñaar fukki at ak juróom te ëllëg sa ñu am ñaar fukki at ak benn moom la ñuy doxee tey jii am na benn oto bu ci dolli ko waat kon ñu ngi ci ñaar fukki oto ak juróom-ñaar jamono yi may wax ak yéen ñu ngi toll ci 706 euh, voyages yoo xam ne xëy na résultat yi tey bokku ci man naam kon bu ci résultat yi tey bokkee dana egg ci 800 wala 800 tuuti euh, mu wute nag lool ak li nga xam ne moom lañ daan toll ci jamono ji ndax fi mu nekk nii ñi ngi toll ci 17 virgule 65 pour cent ci li nga xam ne moom lañ waroon a liggéey moom la ñu war liggéey moo am tuuti jafe-jafe yoo xam ne daf cee am ay gàllankoor moo tax liggéey bi xaw a demee noonu ren nga ni mu wute nga ni daaw nga xam ne tolloon nañ ci euh, bis bii ñu toll nii tey ci mille neuf cent vingt cinq bisu tey bii daaw ñu ngi tolloon ci mille neuf cent vingt cinq bañ ci tolloo sax defoon nañ benn opération boo xam ne xëy na ren nag jublooguñ guñ ci ak ñoom jubaguñ ci waaye bi ñu tolloo fii daaw dañoo sàkk woon ci ñoom ñu tànn ay oto yoo xam ne dañuy liggéey guddi di ni eh, di fanaan ba amoon ci mat fukk ak nangam loola moo tax ñu mënoon a àgg ci taux bi ñu àggoon daaw foofu nag il faut lu ñuy lu ñuy négocier doon waxtaanee ko ak ñoom ndax oto it ñi nga xam ne amuñu ay ñaari sëfër ak ñett ngir ñu def loolu day xaw a jafe waaye buñ ci juboo ba tey danañ defaat nu mel noonu kon ci tolluwaay foofu la commission boobu toll bi ci des nag muy commission sociale moom euh, moom lantinoor la day taataan di jàllale <laughs> euh, am na Euh, comme euh, service yi nga xam ne dañ fi ñëw di fi liggéey si dafa am loo xam ne sëriñ bi dafa leen koy jàppale ci seen i liggéey ak yenn barab yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak lu ko jege muy lu mel ne hôpital yi